liggéey bi ñu woote fii ci ci ci ci ci sëñ eh, sëñ Muntaxa woote fii mhm. xale yi kenn du ci mhm. demee ci jàkka yi ci jumaa yi xale yi kenn du leen ci jiitu mhm. lépp lu sëriñ bi di bañ ñu ci bëri laa la wax bu ma bu wax ñëpp ñu ko koy bañ la ci dëkk bi kon nag man j'entends mal ma dégg ñu naan waaw dañoo ñàkk taalibe xale yi dañoo def xale yi dañoo def naan nañ xool xale yi lan moo leen animé ba ñu yor yenn comportement yi nañ ko xool nañ xool lan moo leen animé ba ñu xale yor yenn yenn yenn comportement yi mhm. mais ay élection lañ dàq pour la première fois dans l'histoire du politique du Sénégal ay mhm. élection présidentielle mhm. dàqoo ko bien avant ni ñu préparé nga bàyyi ba ñëpp pare ba nga xam ne ak quelques heures de la campagne nga ne dàq nañ élection yi mais loolu loolu loolu lañ bëgg kii loolu lañ bëgg a ay ay taal ay loolu mais moom président Macky Sall def moo gën a grave nañ sëñ Cheikh Thioro dañ koo tooñ xale bi xale yi dañuy dem gisu leen yëgu leen tinu leen moom dafa génnee këram ñëw di manifester en tant que un citoyen sénégalais xale yi génn di manifester ñu daje fa loolu la mais yooyu ñu ciy wax yëpp amu ci loolu lépp dëgg la mais est-ce na donte na sax euh, moom Cheikh Thioro bu fekkoon li ñu koy waxal moom moo ko def est-ce que jaar na diggante murit ak murit ñu dem ba ci tudd maanaam naan ay taal ay kër yooyu yoo xam ne maanaam dawuñu ko dégg ci yoon wi daal tal ay keur ci fan man bobu information. maanaam tal keur Cheikh Thioro. audio dam Soda bi nga xamne mom mo fiyete won ok bu ko taaloon nag Sëñ Bass Abdou khader mo mhm. ne nam dem tal keur ki nga xamne mom modi Cheikh Thioro Mbacke waaye jéggalu na ginnaaw ñu gis Cheikh Thioro Mbacke gennu wedd mbir muy mel jappuma sax ne Sëñ Bass Abdou khader mo wax lolu waaw xawma audio bobu nak yalla xamne ne man sax deglu mako ndax man audio yi jàll yu bari di mako deglu mhm. jappuma ne Sëñ Bass Abdou khader mo wax lolu maanaam dam Soda mom mo def ben audio ci seen groupe wax ne sëñ Bass Abdou Khadir waxon na ne ñu taal keur gi nga xamne mom modi Cheikh kiram bakke waye ginnaw bi nag dañ koy bayyi ndax Cheikh kiram bakke jéggalu na ginnaaw loolu nag Cheikh kiram bi mu déggé audio bobu ci la gennat di tontu ci mbir mu ne mel. wa déggo ma ne man man jappuma jappuma ne. Mhm. sëñ Bass Abdou Khadir mo wax lool mhm. ne nañ taal keur sëñ Cheikh kiram mhm. jappuma ne surtout sëñ Abdou Khadir surtout sëñ Touba direct. nek porte parole. euh di khalif ah, ñepp nee lay politique. waaw waaw boole bu dee day politique politique man loolu du ma ci dugg. Mm-hmm. man sama sëriñ la rek man simple taal di rek laa. Mm-hmm. jàpp ma ne sëñ Bass Abdou Khadre moo wax loolu. Mm-hmm. jàpp ma ko. xam naa nag suñu taaloon kër sëñ nag. gëm naa ne wax ji moom dina dina dem feneen heureusement ba loolu yëpp defuñu ko. ba jàmm dellu si na. baax léegi dañuy dugg ci seen allié ba woon wala sax xëy na bis dana ñëw ngeen nekkaat mu di Barthélémy Dias ñu ne Ousmane Sonko ak Macky Sall dañuy dund ci aw ci kaw askan wi. est Sonko bu doon diil du ak euh, Macky Sall du dem mhm. mhm. ak président Macky Sall ñoom ñaar dañ fi mhm. euh, euh, Sonko dafa nekk koo xam ne c'est un vrai patriote moom patriotisme lay dund su fekkee détenu politique yi moo tax ñuy wax détenu politique yi président Ousmane Sonko bu ci joué tamit euh, comité international bi joué na ci mhm. ndaxte yaakaar na am na suñu benn euh, sœur ndeysaan ku baax mhm. def na ay lettres déplacé na dem ba ci sénateur yi nii foofu aux États-Unis mhm. di madame mu jàllo dem na foofu def ci ay jéego ak ñeneen moom na def na ci am solo président Ousmane Sonko su fekkee lañ wax ne moom moo ko wax te détenu yëpp mu génn ma soog génn génn yaakaar naa yow mi may jàkkaarloo sax xam nga ne loolu du diir ndax nag day ñu mën di am doomu jàmbur yi ci kaso du génn moo ñu ko gën a. ñi ci ñi ci ne ñi jàpp nga ne daal ñi nga xam ne tëjoon nañ ci ñëpp amul kenn koo xam ne def na fi loo xam ne lu la war a tëjee maanaam jàpp nga ne daal dañ leen tooñ rek tëj leen ci ci pétition bi. bien sûr bu fekkee da ngay wax ne xëy na dafa am ñoo ne dañ leen a photo mais dañ leen a filmé gis leen ñuy taal. Mm-hmm. mais liñ fi def moo gën a garaaw. Mm-hmm. gis nga gis nga nit boo koy jugé doo ko doo ko doo ci ay émotion Mhm. xam nga loo gis dafa am tamit lu ko waral. Mhm, mhm. xam nga dara xewul nit ñi génn manifester gisoo ko fenn. dégg nga euh, man moo tax des fois suñuy wax naan xale yi di condamné xale yi man ne leen dama xale yi xool leen ci ban situation lañ nekkoon lan moo leen doon animé mais président Ousmane Sonko dañ ko rajee fonction publique loolu jarul génn manifester koo xamee dafa jàng fa mu war a jàngee di servir état di ko liggéey te musu ko yàqal dara o contraire mu ko doon defal. nga jékki-jékki rajee ko xam kooku xam nga ban lan kooku loolu mën a tas kër mën a tas kër mën a rey nit mais loolu la lan moo tax duñ ci wax covid dix bi bi mu ñëwee ana mille milliards euh, yi nga xam ne moom lañ dajale woon jox ale sa sëñ Muntaxa mu ngi ci ba tey am nga ci lu leer mais loolu jarul génn manifester amul ay député fii ñu fi jiiñ ñu ne dañuy def traficu passeport diplomatique fan la mujj mais loolu jarul génn manifester Mhm. léegi cas yooyu yëpp nga xool ko bàyyi ko fi amul ay trafiquants de biais yuñ fi jàpp a flagrant délit mhm. bàyyiwu leen yi ñu nekk en liberté léegi yooyu yëpp nga gis ko xool ko teg ci seen bët te su ma ko doon lim fii du ma juum of nag bëri na ñu fi épinglé mhm. dañoo yee yàbb mais yooyu yëpp nga di ko gis xale yi loolu ñoom ñu ci teg seen bët xam ni réew mi di doxee ñii xale mënoo imaginer benn nit yor ay milliards yow en tant que un citoyen sénégalais hmm. am nga diplôme wala amoo diplôme nga toog hmm. amoo sa xëy hmm. ñi nga xamante ni nii am nañ ay diplôme tey ji ñu ngi chômé dégg ñi nga xamee ñu ngi liggéey ñu di leen fay salaire seen salaire yu doyu leen dara ak yeneen ak yeneen ñi feebar dem du duñu am lu ñu fajoo ñu toog ci kër yi yooyu yëpp nga di gis mu lay naqari fenn nga manifester léegi nag su fekkee dangay ngay manifester bàyyi la rek nga dem sa yoon benn problème nga am comme démb mm-hmm. xoolal démb manifestation bi ñu autorisé zéro mort zéro mm-hmm. benn bruit amul génn nañ wax nañ seen soxla wax nañ liñ bëgg a wax te amul benn problème pourquoi pas def ñu ko woon yeneen yi ndax man mënu maanaam danga bëgg daal bépp manifestation boo xam ne dañ koy woote ci réew mi dañ ko war a autorisé daal ñàkk autorisé gi moo waral li ndax seen ay droit lañ leen a xañ manif ku ku ku demande manifestation dañ la war a bàyyi ndax loolu seen droit la ku am lu la neex doo manifester koo gis mu génne dafay manifester dafa am lu ko naqari. Mhm. te nee réew mu démocratie lañ nekk mais pourquoi pas ñu démocratie ñu di ko doxal moo gën ñu di ko bind ci feuille di ko wax ci làmmiñ ñi te duñ ko jëfe mhm. loolu kese la man de bu ma gisoon kuy manifester ku ku ku ñu ma woon vidéo fii naan ma dafa def lii dafa def lii dama ne leen liñ ko def moo gën a grave nañ xool loolu ba pare. Mhm. waaw comme maanaam li ma la déggee lépp maanaam Barthélémy Dias daal waxu fi dara diil boobu mooy da nga koo dàq daal. xaw ma ne yàlla dimbale na sax du ma leen déglu. ah maanaam dégguma woon dégguma woon sax li Barthélémy Dias wax. yow yaa ma ko wax tey dégguma ko woon. maanaam daal man instant bi man instant bi damaa focus de man xam nga instant bi waaw nañu organiser élection bi. yéen daal ba ba sensibiliser. ñu dem ñu jëleegul seen carte ñu dem jëli ko. sensibiliser askan bi. ci projet PASTEF. wax leen lan moo xew. Mhm. lan la président Ousmane Sonko président Diomaye Faye namm mhm. loolu lañ def mais gis nga man kenn du ma divertir pour te dire yu bëri ci commentaire yi laa ah. koy déggee mais ah, loolu kon divertir nga ko jàppee Barthélémy Dias di am politique génn wax loolu divertir